wasalaatu wasalaam ala ya ah, mbokk yi yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ne yëkkati kàddu ci kaw kàddu yi ñuy dégg léegi lu jafe la wante nag macha allah fi mu tibbee rek ma ne foofu lay tibbee comme dafa ne nañ ko branché mu wax man tam ñaan naa suñu borom ci barke borom bu guddi gi moom it mu branché ma ma wax. waaw dafa lu am solo lu mu wax dinaa si dellu si tuuti wante balay loolu damay wax ne maam Ousmane Diène bii di wax tey mu ngi waxe ci tuuru ñaari kilifa benn kilifa gi mooy délégué de quartier sama rakk la su fi nekkee ak su fi nekkul yëpp sañ naa wax ci turam te xam naa ne du doon lu koy métti lu koy neex lay doon ndax fu mu toog dafa naan man maay magam te ay ay magam la fi toogal keneen ki may waxal moom nag moo gën a diis parce que moom daf ma jox ndigal muy Ibrahima Diène di chef de pénc ndax loolu foog ñu leeral ko tuuti am na ñu ko xam am na ñu ko xamul péncu lébu yi ñoo am borom pénc ak délégué de quartier yeneen quartier yi délégué de quartier rek la am administration moo koy nommé chef de pénc nag moom ah ci pénc mi la fay day jógee te mag la fay doon ci péncukaay Ousmane Diène nag Ibrahima Diène mooy suñu chef de pénc Alsane Diène di suñu délégué de quartier kon ci ñoom seen ñaari tur yooyu laa fas yéene wax ci barke Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam ma leen di wax bisimila di leen wax jërëjëf du ma leen sax marché ndax léeg-léeg wax dafay xaw a dëng ndax soo nee massa dafay mën di lu métti te yaakaar naa ne fii dara méttiwu fi neex rek moo fi am te li koy firndeel ndax ba léegi ñu ngi ci biir aal ndax dañuy woo ci biir aal mooy bi may toog fii sama bopp mu ngi doon métti maa ngi doon wax sax ndax dinaa mën a ràññee baat yéen déet mais dafa mel ni bopp bi métti bi am na fu mu dem xaw ma a fan la kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp duñu lim nag suñu limee dañuy juum wante nit ñëpp xam ne ñu ngi leen di sant ñu koy tàmbalee ci ñi fi teew wante ñi fi teewul tamit bëggoon ñëw ñu ngi leen di gërëm di leen sant am na fu muy tàmbalee wante amul fu muy yem foofu laay mën a taxawee ci gërëm yi ndax dafa am lu ñu wax ma ñëw nag léegi ci aal bi ndax sama branchement man tamit foofu la jëm lu tax may aalu Serigne Mansour dama gis benn vidéo buy jàll fan yi mu ne moom rek moo am alkaati buy jottali du moom moo wax loolu waaw man tamit am na lu may wax tey dama ne man maa am doom mu nekk sama turandoo nekk sama sëriñ muy ñett kooku mooy kan mooy Ousmane Diène bi doon wax léegi fii ñi ma nit wax Ousmane Diène nag su suñu waajur yi teewee maam Ousmane Diène lañ koy wax ba mu nekkee sama turandoo yàgg na ndax ba mu juddoo la ba mu nekkee sama doom yàgg na ndax ba mu juddoo la wante ba mu nekkee sama sëriñ nag ba bi nga xam ne bii suñu borom subhanahu wa taala am na lu mu sol ci moom ñu ngi tey ci deux mille dix huit yàlla dafa dogal ma dem mission France de toute partie bii li ma fa nekk yëpp Ousmane moo may jiite li ma fa nekk yëpp moo may jiite mësuma ko jiite ñu ñaan suñu borom yàlla nañu ko sàmmal sàmmal suñu doom yëpp sàmmal suñu njaboot yëpp ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wa mu woote nag woote bu parce que dafa ne jàng ren bi nañ ko def ci àll moo tax ma gàttal gërëmaate bi ak sant bi man ne dugg ci biir àll bi li tax may aalu nag dinaa ko wax te mën naam am dina tiit waaw ndax moom daf ñu yóbbu ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam man ma wax ne li ñu ñaanoon daaw ci waxtu wi suñu borom ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam defal nañu ko ñun ñi nga xam ne ñun ñooy seen baay muy lan daaw bi ma jël kàddu fii dama ne leen man su ma sañoon xale yi ñooy wax ñun duñu wax. booba temps Mansour moo fi nekkoon nekk maître de cérémonie ñu ñaan loolu ren kooku am gàllankoor bu ko téye xelam mu ngi fi wante dafa am lu ko téye magam ñëw waxtaan fi waxtaan bu mel nii suñu ñaan nangu na wala nangul ku ko nangu fu mu ko jaarale ci Seydina Mouhamed alayhi salaatu wa salaam allahumma salli ala Seydina Mouhamed bi ngay ñëw wax naa leen dama doon xaar nga ñëw par mënu dem parce que dama war a xaar teeru Gambien yi di jégalu nag parce que bu ma jëlee kàddu ba pare damay dem parce que Gambien yi suñu dañu war a war naa ko topp Ablaye Diène Sakho jóge si fan yi mu suñu yaay suñu tante ak di Awa ak suñu papa suñu nijaay El Hadj Ibrahima Sylla ñooñu ay référence la ñu fii ci Ndakaaru surtout à sànq bi mu ci ñëwee ñëpp jël ak Cheikh Modou Silla mu ne boo gisee cofeel imam ratib si Silla am cofeel ci suñu tante Awa Diène ndax foo fekk mu ngi ne xam ne ku nekk la imam Modou Silla itam yëpp diine muy fonk diine fonk sa tarix yàlla yàlla def

moom mi nga xam ne woyof moo tax fu ma toog mu ne ma Assane yaa jël kàddu si turu njabootu imam Mbaye Sylla yàlla yàlla yokk bu ko fanam asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum. wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum. Waalaikumsalam warahmatullahi xam nga jàmm daa mel ni bu njëkk la ëppoon léegi li ko waral mooy baat bi ñu yàlla sant ñu war koy jokkalante ci suñu diggante dañ ko teg moo tax jàmm dootul am ayuha nnaas absuu bisalaam wa at'imu taam wa sallu billayli wa naasu niyaam tadxuluuna aljanna te gars yi aljana lañ bëgg a dem te yooyu teg nañ ko fële yonent bi nee na lii dugal nit aljana ñett rek la mooy baatu salaam bi ñuy tuddee jàmm ngeen di ko jokkalante ci seen biir léegi loolu amatul na def rek moo xew léegi romb la tàllal la loxo ak façon nuyu yooyu ak euh, bi ci gën a doy waar nag nga dégg ko léegi mooy da ngay romb nit dañ ko booy bégee mu la rebégee yooyu xam nga du jàpp du nuyoo su ko defee togg ñam di ko jox ay nit ñuy lekk bu nit ñëpp tëddee di nelaw ngay naafi la ku yaakaar aljana nga yaakaar ku yaakaaru nga yaakaar ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziar bu baax a baax. di ci jiital oustaz ndax mooy kilifa jataay bi ndax kiiwoo woon nit ñi bàyyi lay la ci guddi sayyidina Muhammad te kee tumbum kon ñoo koy jiital ci nuyu bu baax di ko siyaama wax naa ko léegi ne ko doy na war de at ba at waaye nag sëriñ Babacar si daana wax ni ni ci xef yi ni ci xol yee ko gën donc bu ñu gisee gisee yi tamit ñoo ci xol yi donc yàlla ko yàlla yàggal euh, di nuyu tamit bàyyi bu baax di ko ziyaara di ko ndokkeel ci guddi gi di ko ñaanal maa ngi koy ñaanal léegi lu bari yàlla na la seexlu lu bari yàlla na la seexlu yoon àgg na na mu àgg yàlla na nga àggee noonu asamaan mucc na ci max yàlla na nga mucc noonu ci noonu suuna barkeel na lool ndax leget la ñu koy yóbboo ca àll ba ay saret lañ koy dellusee ci kër gi barke boobu yàlla la topp jërëjëf jërëjëf di nuyu suma tooma xal la waxee wax sa tooma moo la branché toog ci escalier boobu gi jër jërëjëf yal na yàlla fay li ñu yóbbante woon la tudd de suma turandoo waaw kay sunu rëy nii moom ñaari leer moom bu sëq moo tax mu taxaw mën a waxe nii di dëbb nag ca faydu ba kon bu waxee rek laa xaruwa yal na yàlla sàmm na maa ngi koy wax léegi nag biñu ma naan yéegal ci kaw ma ne ah moom dana xaw a doy waar de nekk ci kaw sa goro de ci suuf waaye Ibrahima nga baal ma ko bu dul woon digal du ma dem ay ayyuha allazina amanu atiu allaha wa atiu rasul wa ulil amri li am di du moo ñu fi teg ne kon bu ñu yéeg ji fay ñu ngi lay bu baax a baax euh, di nuyu as di nuyu dudu fa tabarakallahu mook ajaa bi mu dendal xam nga ñoom ñaar da ngay defee nii bokkuñu ci mbir mi te ñu organisé ba mu ne cocc ñu isolé bu jëf fële ca àll ba kon dudu ñoo ngi lay nuyu sa rakk ñoo dugg nga dendal di ajaa di suma goro Adja Abi ñoo ngi bu baax a baax di la jaale nag mbokk mi ñu wax léegi muy Adja Awa Awa Dieng Lo ñoo ngi la koy jaale bu baax Awa loo Dieng waaw fa tabarakallahu bi ma koy woo ne ko maa ngi tukki booba ndeysaan mu ni ma maa ngi nii ci hôpital bi ñaanalal ma ko yàlla bu baax a baax ci tukki ba ma woote rek ñu ne ma ñoo ngi ne ci sarax si loolu neex yàlla bu digtee ngi lu ciy barke yàlla na ko ci yàlla séddu fa tabarakallahu di nuyu suma xarit bu fi nekkul moom itamit nag di soxna Sofi moom itamit ñu ñaanaale ko yàlla bu baax a baax guddi gi daal mi ngi nii guddi gi Seydina Muhammad la bala nga di naan nag ñaar war ne def jaam sax ci guddi ak bëccëg di sant yàlla fu Muhammad di sant yàlla ak di julli ci Seydina Mohamed yow ñi fi jiitu yaa leen gën lu tax nga gën leen ñi fi jiitu du yaa leen gën lu tax nga gën leen du yonent bi xayru kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi ci kaw taamuruna bil maaruf wa tanhawna anil munkara ah, waaw kay tuminuna billahi su fekkee nag ni yonente bee tax nga gën koo warut gën kon foo toll woon ngay julli ci sayyidina Muhammad santal yàlla na yàlla mi la denc ba aadama déclenché noo déclenché ñëpp déclenché ba ci sayyidina Isa mu denc la ba sayyidina Muhammad ñëw mu dog laa génnee boole la ci xeet bi gën ci xeet bi kon santal yàlla mi la dencoon ba denc ba génne la tey kon foo toll war nañu sant yàlla di julli ci sayyidina Muhammad mbokk Ousmane gis nga yonent bi nee fu ñu may tuddee donte seconde la danaa ko fa jaar yonent bi nee na fu ko fa jaar bi ci tegu maa ngi waxtaan benn waxtaan bu yàggul ma ni lañ doon Fuuta waxoon lay wax gàmmu gi neex na conférence bi neex na nga ñibbi am koo dajeel ci yoon wi wala nga am koo fekk ci kër ga foo jóge gàmmu ga foo jógee conférence ba fu ko doon gàmmu diw moom moom lu mu wax moom kay lu ne la wax lu ne lu mu wax wax ci dara moom kay lu ne la sëriñ ba wax lu ne lu ne la sëriñ ba wax mais la sëriñ ba wax wax ci dara la ma waxoon Tiwaawan nag mooy li togg togg yi sol yi naan naan yi ataay ataay yi ñibbi dégguñu dara ca lañu ñu taxoon a dem bu déwénee bu kenn dem fenn la ñëpp toog si pour ne këram waaye ku fi dagg paas sa fi ñam jëm dëkk ba la neex ci dëkk yaa xam nga sippi guddi jot nga sol lu ñëw toog ñu waxal na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donte benn jikko la boo ci jël ca wax ja la muy bari bari bari nga dellu si dund ko ba déwén boo dee dellu lii bay doogu juddu sax du ko bàyyi ci kër gu yóbbuwaale ah yal na yàlla fayal ñu mag ñi nga xam ni ñoo organisé yii ba lii am maa ngi koy wax ci burdu bi ñu am ci kër ga nii euh, Seydil Hadj Malick yàlla ñu ko yàlla fayal ak mag ñu yëpp kenn ku nekk fa nga nekk sa ruq yaa ngay taal la ngay taal mais gis nga nee naa ku burdu ci dëkk bi Seydi Hadj Malick dina am wàllam waaw burdu Mouhamadul Basir yi dafa feebar du bunt fukki du fukki bunt la waaw feebar bi métti ba jéggi dayoo ñaan yàlla mu ne def na ko mënta wér mu ne naa tagg Sayyiduna Muhammad daal di commencé jël burdu bi bunt bi jeexee rek bi feeñu ko rek fóon ko simmi mbubb moom soloon sànni ko mu yeewu wér ñu tudde ko burdu Seydi Hadji buntu la te bu suri yu bi la ci defoon te gars yi dañ mi wax ni bis bu njëkk bala yonent bi judd wala bisu ñaareel ba wala ñetteel wala wala juróom wala juróom benn juróom-ñaar juróom-ñett juróom-ñett fukk ban la ci man xawuma ko kon naa commencé di bis bu ne rek ba def bunt benn bunt jàng ko tudde ko mag gàmm soo amee fukki fan am fukki bunt comme fukki baag benn kenn tudd ko ma noppalu ko fukki baag ñaar bu jotee ma gàmm xanaa tey ku am gàmm ma am gàmm ku amul gàmm ma am am de kon mag moomu mag ñooñu organisé woon loolu moom Seydil Hadji Malick fekk na fi burdu ndax mag fekk na fi nit ñi daan def burdu ndax Seydina Cheikh daal def burdu ci xam si la ko daan def ah kon nag yu mel noonu su ko mag ñi organisé def ko li Ousmane wax léegi mooy li am buñ fi daje rek sol yére yu rafet foto su naani naan lekk-lekk ñibbi te jëlewuñ fi dara ci guddi gi temps dafa cher waxtu dafa jafe toogaay dafa métti yàlla xam na ni maa ngi koy wax bàyyi laay léegi xam nga yow sa bopp koy métti Ousmane sa bopp koy métti man sama ndigee métti waaw man de sax ndigg ngi wàññeeku ah waaw ah, kon kon ki faj ki faj yëpp a fekk dama dem na nañ bàyyi loolu sax nañ bàyyi loolu yal na yàlla fayal ñu mag ñi wax naa ne ku la raw ci rawee xam nga maa ngi wax xam nga seen Hadji Malick gis nga li mu organisé ba am ci lim ci bëgg maa ngi koy wax benn mbokk ma ne ko gis nga alhaji ibrahim alhaji ibrahim Niass xam nga lu tax mu raw ñu bari xam nga nag alhaji ibrahima sàmp la mu waxoon moo am ngeen man su may waxtaan su waxtaan kii séddale lekk yi wala naan yi xañ na ma ñaari client ki ñu jox muy naan moom dégluutuma ki jotagul nag ndax dana jot wala du jot kooku itti luuma talatuma kooku itti luuma moo tax mooy waxtaan kuy joxe lekk xaj nga ma ñaari ci yàlla ah te lekk gi dafa teel bàyyi lay tàmbalee ko xam nga toobaa man bëgguma dugg sax ci thème bi ndax ayub jàmbur ku ca toggantu yaa tooñ borom ah, ah. ayub jàmbur ku ca toggantu yaa tooñ borom Xaj Ibrahim Niass xam nga lu tax moroom bu bëri ah. moom day gàttalu dalal gunge moom day gàttalu dalal gunge gis nga boo boo demoon Kaolack nii bi gàmmu gi daataan ñëw semaine xalaat Ibrahima Niass foo toll ci biir Kaolack bu seen lamp yi man Bouchra su ma daan toog ba xool jumaa ji gis lamp tamit damay xool sama benn xarit bu ñuy wax Daouda Daouda Dia xalaat Daouda Dia bu mbëllëxee lañ ko tuddee. dugg nañ ko lamp yaa ngi tàkk ne dem ndax ñu am reer ya te taalibe reer ko yomb bu gàmmu gi ñëwee mu su gàmmu ga jeexee mu gàmmu wat semaine gis nga bu ñu gàmmu altine bii demal Kaolack ba altine bii dem soit dañuy gàmmuwaat gis nga bu nit ñi naan gàmmu nii ba njël jot bu ñëpp fatoo alhaji ibrahima nes day day alhaji waxtu la quatre heures pile de quatre deux heures pile mu tëdd quatre heures pile mu yeewu waaw te bu manqué parce que bu lawraat yee am daax yi bare ci moom ba temps bi passé su continuer bu yeewoo du tax bëccëg bi sax mu nelaw ko man li ma jaaxal mooy gars yi bëgg yàlla yorent bi bëgg a dem te balaa 10 heures ñu nelaw 6 heures la ñuy yeew wala 7 heures te ku ci añ da laalaat lal bi nelawaat ah mag ñooñu fa ñu jaar ba raw won nañu yoon wa ñun ñoo ci des xam nga lu xew taxani nañu ñoom taal taal bi togg togg gi ba mu ñor ñu yàq koon tibb lekk rek moo ci des kon mag ñi defar nañu lépp yàlla yàlla fayal man su defee a tëdd léegi su ma néeg ba may jóg ci lal bi damay wonk ma ne soxna billaahi bu dul woon bàyyi laay moo xewle tey sama néeg bi bala ma ko génn suba ci 10 heures lay doon xamul noo koy def nag nam la nam la dafa tax Seydina Mouhamed daal moom guddee na ngi nii ku yaakaar nag ni mi ngi ci àdduna bi nax nga sa bopp mm-hmm. ku yaakaar ne yonent bay nekkoon ci kaw suuf na ko léegi suuf attanul Seydina Mouhamed si ak yonent xam lu tax lu tax nga xam ne yonent bi nekkul ci kaw suuf di dox ñaari mbir laa la ki jox yonent bi dafa am na takk weer waaw kay yonent bi bu tegee tànkam bu yëkkatee ndax da nga gis mu marqué waaw mais nit kay xanaa buy dox dana am takk ne bu tegee tànk bu yëkkatee nga war a gis moom teg mu teggi ko ah la Isa waxoon mooy dëgg maa ngi dem mais am na kuy ñëw Ahmed lay tudd Ahmed boobu nag bu ñëwee moo leen di orienté bigal leen Ahmed boobu ñëw xam ni suuf attanu ko mu bàyyi fi Mouhamed bi dellu Ahmed ba ca kaw. dégg nga ma de. ba mu ne suuf si attanu mu bàyyi fi Mouhamed bi dellu ci Ahmed am ba ca kaw ndax doomu aadama boo gis am na ñaari tur maa ngi koy wax benn ay benn sëriñ ma ko da bëgg a defar diw mu ne ma waaw ko ndax xam nga turam bi ci kaw mu ne ma déedéet ma ne ko kon bàyyi jàppal mu dem mu ne ma lu tax ma ne ko doomu aadama ñoo gis am ne ñaari tur tur ñu koy woyee ci suuf ak tur bañ koy woyee ci kaw sëriñ boo fi àndal nitu yàlla laa boo fi àndal nga bëgg mu defar la xamul sa tur bi lay wooyee fii xamul sa tur bañ lay wooyee ci kaw da ngay sonn waaye du la defar doo defar ci moom ah? waaye sëriñ boo ñëw mu ne la sa tur wi ca kaw asamaan nangam la sa tur bi nangam la mu correspondre ñaari tur yooyu ya. rek boo toogee rek mu defar kon yàlla na yàlla fayal Seydina Muhammad moom bi nga xam ni moo waral coow li moom bi nga xam ni moo waral guddi yi waaye nag man dama ne woon Sénégal kenn du ki def safara ñëpp àjjana la ñuy dem ndax koo xool yonent bi la sopp te ku sopp yonent bi du dem safara koo xool yàlla la gëm ci ku gëm yàlla dem safara Sénégal man dem naa dem naa Màkka Ibrahima xam ne ci dara mais la ma fa gis xam naa ni daal ah man daal naa dellu Sénégal bu ma jóge woon euh, xam naa ne li fi nekk nekkul fenn bërki démb laa jóge États-Unis la ma fa gis wallahi dama ne la ma am Sénégal naa ko gën a téye bu baax a baax a baax ndax fii li fi nekk ci bëgg bu ñu bëgg Sayyidina Muhammad man damay dox États-Unis léeg-léeg bi métti ma sol suma manteau xëcc suma mbaxane sol sumay gants yor sama course wot sama loxo mais ma romb daf may xoolaat ñi may gerte di ma xool Sénégal moom booy na su course duñ fa faare dañ daa war nekk di waye foofa la nga yor sa course dox ci mbedd bi mo leen yéen dañ nan bi nit bokul ci dëkk bi bi nit moy man fa soori kon Sénégal li ñu am nañ ko sant yalla bu baax te mag ñi ñoo liggéey loolu yalla na yàlla boole ñu mag ñi kon baye di rek laa si bëggoon ubbi ci ay cadeau yu gatt yu ñak solo yo xamni mbir ni mo tax ñu wax ko tay waye bu non non dañu tok rek ñu diglu ndax ñu diglu mo ñu fi indi tay ndax yow yaay borom mbir mi te wax naa tok bu jaamu kenn ci ay jaamu kenn ca toggat yor yor wala mbind wala yor takusan jot dana damay defar espèce su nomleeg yooyu taaj ko yi ñu lekk ko bu reer bi jotee mu ko lekkul yaa tooñ gars yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah